Euh, dogal ba wàcc na moom Moustapha Diakhaté condamné à deux mois de prison ferme voilà loolu la suñu confrère yu Bourgneys daal di xibaar xam naa du ñàkk aussi euh, suñu ay ndaw yu fa nekk rek dañu woy di ko daal di confirmer waaye selon Bourgnews donne également une site d'information il vient juste de nous confirmer comme quoi que Moustapha Diakhaté a à deux mois de euh, prison ferme on verra bien ci par rapport ak information moom nga xam ne euh, Bourgnews joxe nañu ko fan la daal li nga xam ne rek moo di mujj en tout cas mu ngi noonu 77 842 19 19 77 842 19 19 mooy bu mu jokkoo bi waaye xibaar. xibaar bi jaarale ko suñu ay confrères yu buur News loolee la ñu euh, waxandi mooy tëj nañu ko ñaari weeru kaso yoo xam ne daf koy dal di euh, tëdd xibaar la bu Bour News également euh, dal di joxe ñu dal ko fa jëlee tout à l'heure on verra bien 842 euh, 19 19 77 842 19 19 mooy buumu jokkoo bi euh, képp koo xam ne rek woote nga ci incha allah ñu jël la du ñàkk ci kanam aussi euh, suñu ay confrères dinañu wala avocat également dinañu génn bu ko defee ñoom it dina yëkkati ay kaddu ci par rapport ak boobule xibaar allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Bamba. ñu ngi ziar bu baax góor gi. Bamba naka jàmm ji. waaw sant rek ak mu ñàkk mooy ko. waaw yaa ngi si jàmm. alhamdulilah bien merci. waaw man suñu Sénégal gii neex na. <laughs> gis nga balaa ngaa xam ne neex na. Ah. ñuy wax ñëpp nga génnoon. donc mi noonu ah bi mu ngi doxee. nañ ko nañ ko nañ ko nañ waaye le temps que. ko centré le temps que mu ñëw. mètre mi ngi noonu di ñëw. waaye maa sori gars génnee euh, lu wér la mooy euh, ba euh, Moustapha Diakhaté tëj nañ ko ñaar ci weer yoo xam ne daf ko fas yéene tëdd ca kaso ga on verra bien bu fekkee ne maître El Hadj parce que tout à l'heure gis nañ ko ci image donnée muy génn moom maître El Hadj bu fekkee rek noppi na région ñu jokkeel ko mbokk internet yi ñu déglu kàddu yi nga xam ne moom avocat wu maître El avocat wu Moustapha Diakhaté nga xam ne moo di maître El Hadj dina ko daal di yëkkati jëmale ci client boobee nga xam ne ñoo ko toppee nag ay maanaam daal saaga ko. ci ab askan jaarale ko ci li nga xam ne moo di xarale yu bees bu fekkee rek baax na régie ñu dem seetaan yi euh, boobule euh, kaddu bàyyee ko également ci li nga xam ne euh, moo di ci ni mel Cheikh Thiam condamné à deux mois ferme je pense pas foofu ne également ma joxe xibaar bi ah Cheikh Thiam condamné à deux mois ferme en tout cas on verra on verra bu fekkee régie baax na ñu dem seetaan yi boobule euh, boobule ñu dem seetaani également euh, avocat bi di maître El Hadj Diouf au également peut-être mu ngi doon xibaar bi mooy que moom Moustapha Diakhaté ñaar ci euh, li nga xam ne rek moo di weer dina ko tëdd ca kaso ga beneen biit mooy Cheikh Thiam ñu ngi ñuy wax ne moom deux deux mois la ñu ko la ñu ko tëj voilà donc mu ngi doon on verra bien. Euh, on bien ci par rapport ak dogal bi nga xam ne wàcc na bu fekkee rek régie noppi na ñu dem jëli li nga xam ne moo di. ñu dem jëli li nga xam ne aussi moo di euh, maître El Hadj ndaxte xam ngeen ne euh, moom moo koy layal ànd ci également ak maître Amadou Sall su ma juumul moo ko mooy avocat am donc dafa mel ni génn na xam naa rek bu fekkee ne. Le tribunal de grande instance de Dakar sorti en de flagrant vient de condamner M. Moustapha Diakhaté à la peine de deux mois ferme pour avoir utilisé le mot alku et l'expression, pour ne pas dire le proverbe, Garodof de terre. Aujourd'hui, tout le débat a tourné autour de ces expressions Wolof. Et il y a eu un problème de compréhension et un problème d'interprétation. pour le parquet donc pour le procureur alku c'est un mot injurieux dire que alku wala alku nga c'est insulter ou s'insulter Alors, comme vous le savez, alku ça veut dire en wolof ku perte ku sànku ku réer ku ñu nax mais pour euh, le maître des poursuites il tient à faire de alku une expression un mot injurieux une insulte il est accusé d'avoir tenu des discours contraires aux bonnes mais lui devant le parquet il déclare que l'acte d'accusation a été modifié donc on l'a condamné pour ses expressions qui ne sont même pas comprises pour moi par le parquet quand il répond pour dire que ku alku rek mooy def mooy ku xamul li mu wax donc il dit que c'est celui qui ne comprend pas qui a été dupé qui a été arnaqué ou qui a été escroqué politiquement seul qui peut voter pour Pastef mais c'est une analyse parce qu'il est parti, il est parti du projet inexistant qui aurait été écrit par 4000 cadres. Il a dit que c'est du vent. Parce que le projet a été écrit bien après la prise du pouvoir. Et pourtant, les gens, malgré cette tromperie, sont revenus pour voter pour l'auteur de ce projet qui était du vent. Il dit que ku wal ku alku rek mooy gisu nax la ba pare nga nangu nax bi te voter ki la nax donc en français c'est celui qui est dupé qui est arnaqué qui est trompé qui accepte la tromperie parce que ne comprend parce que def alku et il dit en faisant référence au prophète paix et salut sur lui. Et en faisant référence à Cheikh Anta Diop, ce grand savant, il dit que xam lu bon sa askan bañ koo wax yaag muuma bu seytaane benn ngeen donc lui il a cru utile d'informer de conscientiser le peuple une partie du peuple qui n'a rien compris et qui se fait tout le temps arnaquer, abuser.